liggéey bi mu sumb jëm si wàllu assainissement bu Touba Touba sa kanam tàmbali na phase bu njëkk bi si gox bi di 30 gu sexaw ga liggéey bi tàmbali na boo fi accès gis ni barab bi ni mu meloon ak ni ñu ko tàmbalee di soppee xam ni Touba sa kanam farlu na si liggéey bu nu mel naka noonu délégation bu mag moom la Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké porte-parole du khalife général des Mourides àndal ñëw ngir saytu si liggéey bi si turu Serigne Mountakha Mbacké Bachir khalife général des Mourides bi mu ñëwee fekk na fi Serigne Abibou Mbacké yi mii kilifa yi sa kanam ngir nag saytu tolluwaayu liggéey bi ki nga xamante ni moom mooy ingénieur bi yor wàllub liggéey bi di Ngagne Thiam moom nag mi ngi leeral sëriñ bi barab yi ni mu meloon barab yi si melokaan bu jéggi dayo bi ñu ko fekkoon doonoon barab buy taa du ñàkkoon sax mu amoon ay jeexintal si dem bi ak dikk bi ak si askan wi nga xamante ni ñoo fekk baax fii moom nag dellu si na si taxawaay bi Touba sa kanam am ngir nag saafara ko ba sax dàkk. fi mu toll fii fii la traite bi yam nii li tax ñu yamagul fii li li ci topp dafa mel ni bi ñu euh, dëkkandoo yi waxee dafa am guy gu mag gu fa nekkoon loolu nag dafay tax bu amee ban dafay mel ni loo xamante ni faaw ñu dindi ko fi mu suba dañ fi di engin bi nga xam moo fi nekk dana ci gas daanaka lu mat euh, ñaari mètre ci suuf ñu doog di traité loolu ba pare nag daal di continuer nga xamante bi nee ni boo liggéey danañ ko mën a def incha allah. loolu loolu loolu la ñuy def moom bu ñu bu ñu ci noppee moo xam pavé la moo xam goudron la lu luñ ci bëgg a teg mën nañ ko cee teg ëllëg incha allah ba pare day méngoo ak leneen yi nga xam ne moo ci nekk ah. bu ci gën a yomb pavé moo ci gën a yomb. paa bi moo ci gën a ci a yomb. ah. lañ koy def si. ñëw di daal daal di ciy dem si barab bi demaat nanu fi nga xamante ni mooy Kër Ñang fii tamit naka noonu nekkoon na barab bu am ay jafe-jafe ndox mi lëmbee woon na fii ñàkkloon tamit mu am ay jeexintal si dundub askan wi Touba sa kanam jóg taxaw tem ngir indi si caafara fii nag sëriñ Bassirou Abdou Khadr Mbacke mi fi teewloon sëriñ Mountakha Mbacke Bachir yëkkati na ay kàddu gis ni kat taxawaayu tuuba sa kanam li ko laal mooy jëf ju bari ak wax ju tuuti rafetlu loolu nag lii mu jot a gis si liggéey bi gis ni kat lii de kawe na njortam te nag bu demee dina ko àggale si sëriñ Mountakha Mbacke Bachir mi ko yabal. sëñ Bada daa wax. jëf du ànd ki wax. lii moom jëf la. lu ne fàng lu wala wala chaman chamiha kal mushahidi lii moom jàkkaarloo la moo tax. waaw waaye lii doom dal na bu baax a baax danaa ko naan leer sëñ bi lépp insha allah ndax léegi lañ fa jógee sedd na xelam dal na alhamdulilah am na ci liñ ci wax ñëpp dégg ko lañ ci lam ci yéene lam ci wax kawe na loolu waaw kay yéen itam ngi leen sant bu baax ndax moom liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp la war nag bu ngeen bekk bi boo bët ko jaayaat lépp jënd ko taalibe def na seen maam bi defoon loolu moom mooy liggéey bi waaw loolu moom yàlla na Sëriñ Tuubaa saxal te dimbali leen ci kattan na leen ci bu baax waaw dal dal na suñu xel Touba sa kanam fas yéene wéy liggéey bi ci pàcc bu njëkk bi daanaka lu tollook ñaar fukki poñ ci biir Touba ñu nemmeeku ni am na ay jafe-jafe mu fa yéene ko sëkk wala sax mu def fa ay tali fexe nag ba fenn dootul taa lu nu mel nag taxoon na mu yëkkati woon lii di jaayante loole nag ñu koy wéyal saa su nekk ba mën a matal mbëbët yi ngir gox bu sell bii di Touba dootul amati benn jafe-jafe ci wàllu assainissement. wajalilaayi rasmiha bi jaayi xayri ma nabaat